ñoom ba ñuy wut tey dem a tool ñu ne ma doog fa suul dinaa ko fa suul auzu billahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la wax rek li xew ci dëkk bi fii rek la xewee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 police ñëw na ànd ñoom su préfet ñëw na ànd ñoom lii ban dëkk la ñu nekk lañu ñu bëgg xam lii na ngeen ko tasaare mu dem fépp ba àdduna bi yëpp yëg ko bu fekkente ne géwél amuñu ko amul droit ñu suul ko Sénégal rek ñu wax bu ñu waxee bu ñu Adama Barrow EBC dinañu génn senegal dem Gambie wasalaam. yaa oh, yàgg na yàggul problème bi moo fi amoon 2019 moo répété waat tey boo ñëwee bay dugg Thiès man li ma gën a jaaxal boo ñëwee bay dugg Thiès chrétiens yi ak musulmans yi ñoo bokk benn armeel benn miir moo dox seen diggante kon léegi fekkee armeeru julit ak julit mënuñoo ba bokk man xamatuma ci dara yaa ngi dégg lii nag fi mu toll nii la amoon ca atum njaam ya moom moo ñëwaat ba tey rek moom moo ñëwaat fi ma gëm nag ñu ne ay julit lañ ba pare ñu ne fii dañ fiy suul géwél fii dañ fiy suul géer waaw sëñ bi waxu ko fenn man gisuma ko fenn fu ñu ko fu ñu ko wax ci alxuraan waaw loolu nag moom moo xew fi tey wasalaam affaire moom man maa ngi tudd Amadou Diouf man la sama mère wàcc liggéey gars yi moom dañoo sonn fu mu ne nii dañoo sonn boo tax na fu mu toll nii sax wax ji dañ cee dañ cee taayate fu nii ndax lii nii booy xool deux mille dix la fi nekkoon la fi njëkk a am deux mille dix bu mu fi amee it su sous moo fi ànd ak gendarme ay commandant yi ñoom ñëpp ñëw bu ñu fi ñëwee dañu lii bu soobee la du mat weer ñu regle problème bi du mat weer la wax du mat weer ba affaire bi presque am na at ak wala ñaari at ba keneen décédé waat fii bu mu décédé waatee fii encore ñun du ñu woo kenn ñun dañuy jóge jóg jóg fu ñu am maanaam mooy nekk suñu cimetière yi fa la ñuy jubal tout droit pour war dañ ji foofu mais bu ñu demee gas ba pare ba war a def dañ euh, dëkkuwaay bu ñu ko gasee ba pare ba war a wëñeeku kër gi pour war a yóbbu kii ñoom ñooy woote ñoom ci boppam ñoom ñooy woote fee ne ci police gendarmerie woote fa ne leen gars yi ñu ngi indi fi problème ñu ngi fi xëy te fekk araam dara amu ci ñoom ñoo jël seen wëg yi ba pare bu ko defee nag gendarmerie daw ñëw nag bu dawee ñëw balaa ñoo daw seen yett <clears throat> bu ko defee police gis loolu gendarmerie gis loolu tiitit woot ay commande ki sous préfet sous préfet ñëw te xeex taxu ñoo jog nit ku dee wàcc liggéey ba nga ko dëj loolu jarul xeex jarul xulo ñoom ñi ku ci liggéey ci ñoom kenn kenn du ciy wax dara dañuy bëgg a yëkkati ñoom di yëkkati fu leen neex ñoom ñu dem suuf te ñuy ànd ak ñoom sax ñun ñi mais ñun ku wàcc ñun liggéey dañ lay indi ay seytaani ay dangay géwél ngaag géwélan lay dëkkal la yow fii nii ana ana ana ana ko fi nekk tamu mu doon doomu aadama kom ñëpp te yàlla bi ñu bi ñëpp da ci gën ta mëno gëm lool mëno dund lool ñi daal sawaay mu ngi ni commandant bu fi ñëwee and ak ñom sous préfet bu ñëwee and ak ñoom jéemuñ ci dox lu dul tank tànk jaamu da waxuñ ci dara ñom dal bu ñëwee dañ ñëw ko régler dañ ko régler dem légui nak mu ngi noonu ñom dal fekk manam te yalla mo mom birum diko doxale ni ko mu ngi noonu kuñ ci jappalé baax na kuñ jappalé ñoo xam yalla ko dogalé non rek euh, euh, waaw mom motax ñu bañ ñu suul fi danañ ñii nii maanaam dañoo ànd ak moom di leen defal affaire ay affaire dund saayar la yooyu noonu yooyu gii ñi defatuñ ko ñii dund yàlla mo leen tax a jóg bàyyi bi moo leen tax a jóg fu kuréel am gaa yaa nga foofu noonu fii nii kër gi fii sax dañ fii sikkar bu ñu fa daan sikkar fii dañoo sànni ay xeer fii bu ñu fi doon sikkar fii dañoo sànni fii ay xeer mais kenn mosu leen réglé duñ leen wax dara léegi ñun nag ah xam nga comme suñu mbokk yi ñu téye fii tey ak problème nu amee fii ak population nu mu bëree fii tey boo sooganteeg ñoom ñun ñu doon dañ naroon a fi tax sax dañ ñëw nan day ut jam bo de jam kay ngi tax jam mënta kay da ngay gis ku togn ku togn kay mo ngay dem nga tek ku ci yoon mais bo de lay ko xamni mo togn mom nga togn ba pare nga diko ko gën a naqaral loolu saa waay xam nga loolu doy na waar dafa doy waar. waaw dañu ne maanaam fii nii maanaam ñom jii ñoom euh, ñoom fii nii daal maanaam fii daal fii fi am dara dal ci luñu seen gis-gis waaw dal waru ñu fi am benn gis am benn benn benn benn do am ne maanaam tey jii suñu bëgg war nañ ko am lepp luñu am dal mën nañu ko xañ dal ñu ngi ci dëkk sax jour waaw dañu ñoo fi nekk ak ñom fi bi lañ juddoo ak ñoom fii lañ yaroo ak ñoom am ay carte d'identité ay carte d'identité comme ñëpp di voté comme ñëpp kon ñoom ñu war fi am seen àq ak yelleef ñu noonu ñu fi am suñu àq ak yelleef loolu pour lan la dañu leen di xeeb di leen tuutaal bëgguñu ñu am dara lépp loo am lu baax fii daal bu ñu sañoon daal ñoom lay yem du ñëm ci yow waaw lijjantewuñ leen ñun dañu ne di liggéey di wàcc suñu suñu kër yi demuñu fenn lu ñu am daal bokk ak suñu waa suñu njaboot loolu lañ fi doon xeexuñu kenn yéenewuñ kenn lu bon ñun nag ay Baay Faal lañ ay say ibrahima mo lañu suñu sëriñ ibrahima lañu say señ touba lañu yaakar ak suñu sëriñ ci loolu lañu dund dunduñu ci leneen lepp lo xam seytan la dañ koy moytu lepp lo xam sayer saayar la bëgguñu ñun dal islam moñu ñor dund yalla moñu ñor ñoom nak luñu bëgg seytan nañ jël yellu ñun doyal nañ sëkk seytaan bëgguñu ko wuñ ko toppuñu ko ñoom ñuko bëgg nak yéen ko lañ jël mu ngi non luñ ci man nak acca tool bi ñun ñoko mom ñun ñi tool bi ñun ñi ñoko mom waaw tool bi ñun ñoo ko moom daa nee nañ ñu tool bi comme ñun dañoo ay autorisation ay ay ay cimetière amuñu kayit ba ñu faa suul dañuy ñu am autorisation te ñoom seen armée yaa ngi amuñu autorisation ñun ñu doon suul bu njëkk moom bu mu dem ba gis dañ fay sulli ci la ko seen wetu kër fa la suul papam léegi ñun ñu jël ñu ni kon fekk demee fii suñu na muy dencee moom amul kayit bëgg la wutloo kayit ñun chef de village chef de village moo moom mi ji nekkoon ak ñun am ay am ay armée la dend ak ñun jékki-jékki jël armée dindi ko yóbbu ko wetu këram ñun ñu bëgg a jël suñu yées yi bëgg ko yóbbu suñu wetu kër mu ne ame amee dafay amee te moom mu ngi noonu yéeyi ci yaay bi wu ci buñ ko ko laajee démb bum bu mu ko ko laajee démb dama ne pat waxu moo tax ma ne kii nekk suñu chef de village chef de côté la ndax àndut ak ñun bëgg lu ñu bëgg bëgg ko du ñu laaj suñu dara lépp lu ñuy wax moom la wax lu ñu lay waxul waxu ko ñun daal lu ñu bëgg moom du doxu ci lépp loo xam ne suñu defet daal moo koy tax a jóg buñ cee nar am defet daal moom moo koy tax a jóg waaye jéemu cee yey jéemu cee yàbbi lépp lu jur jaamit bëgg ko moom daal ay la ci bëgg rek ay ñun daal rek loolu la bëgg léegi kooku noonu nag noo koy defee chef de village kooku li koy defee chef de village daal moom moo jaaxal lii daal jàmbaar looloo fi ne lii daal moo fi ne waaw gouvernement bi daal ngi noonu lu mu ci def def ko waaw njëkkoon na fi am 2019 benn maire njëkkoon na ba gars yi ñëw fii yooyu affaire affaire yooyu noonu affaire suul yi nii ay gii yooyu dool ci doolu daal la ñu ñun waaw léegi boobu ba léegi nag kenn yeeyu ci kenn yàbbu ci kenn doxu ci ñu leen di déglu boobu ba léegi boo ñu leen après après après daal lañ ko jàppoo sous-préfet bi nekkoon gars yi dañ koo euh, dañ koo jële fii indi fi keneen ko bees kooku bu mu fi ñëwee démb kooku nee na euh, kooku noonu nee na def yi doog ñëw ma cinq mois la fi amagum gis na kayit yi mais dafa ñu dox ci wax ci yooyu lan lay wax a wax même day biti fii nii sax des fois nga ñëw ne duñ la jaay bitiki fii am yoon. sikar bi ñu sikar nii bi leen te Sëñ Saaliw Ture lañ njëkk a woo fii Sëñ Saaliw Ture ne na képp kuy wax laa ilaaha illallaah bu ko noonu Sëñ moo njëkk ñëw ci dëkk bi ne leen Sëñ Tuubaa nee na képp kuy wax laa ilaaha illallaah bu ko noono ñun ñoom nag ay sabar la ñu xam ak ay ndënd ñoom moom la ñu xam ñoom ay caaxaan rek la ñu xam ñoom ay dund saayer ñun nag sax guddaaju ma ñu yëkkati suñu sikar fii baatu laa ilaha illa moo fi nekk ba ay 23h sous-préfet bi fi nekkoon loolu la ñu joxoon duration bu ngeen di sikar bu 23h ngeen arrêté duñ ko yëgalee foofu bu ñu yëkkatee 8h balaa 22h ñu pare tëdd xam nga kon kooku tooñul kenn xam nga kon ko dégg na ndigal yaa ngi dund loo xam ne dérangé wu ci kenn heure bi la jox du yegg sax nga arrêté kooku tooñul kenn siñ bi yéen ñoom kay ñoo jógee fee di tooñ nit ñi ñi nag dañoo muñ a muñ a muñ a muñ a muñ ba sës fu dee ñoom ñoom yàlla nag nañu taw ay xeer secret boo koy muñoo daa am fu muy sës yow mi koy muñuloo da nga war a xool man ba xam kii muñu kaayam fii la yem nag nga jàppale ko ci lu muy ci lu muy xeex ndax ñun ñëpp ay musulman lañ ñun ñëpp ay nit lañ te yàlla ne li mu bind ci àdduna bi yëpp nit ci gën kooku boo jël di ko tuutal nag sëñ bi yow xamoo li nga bëgg nit man day mag mala nit yemut ak dara nit ay nit doomu aadama mooy pee mooy lépp moo moom lépp kon nag bu ba sa moromu doomu aadama di xañ dara ci kaw suuf te yéen ci ci kaw suuf si suuf si liñ ci am matul sa deux mètres ñun yëpp ku ci am li nga am ci suuf si li la ci war a matu sa deux mètres bu mat na quatre vingt sax kon nag bo dem bari di ko naan ne ko moom ba ko xañ sa doomu adam ba romu doomu adam ah jeelal wa yalla da xam nga mom li nga mom yow dina la ko joxale de ya xam nak wallaahi bu den dina la jox li nga am de waaye nag bu day fekk nga liggéey ko te lu way liggéey nak mom ngay jot lu way liggéey lu ne mom la lay fay motax tax nañ gor ñiy ñi topul leen ci dara meralu leen ci dara dañu xam ni ñi xamuñu xamuñu seeni borom xamuñ seeni morom buñu ñu xamul seeni borom xam seeni morom duñu doxale ni ndax ko xam yalla da ngay woto murid surtout ma muridullahi ku yàgg ci yalla yegg ci boromam du togn bu la togn da nga wara a muñ motax ñu ñuy togn dañuy muñ daa nga xam yalla moñu ko jagleel ñu dekkoo ko ñu muñoo ko yàlla ñu jàgg euh, jox suñu borom rek na xam ne mbir yëpp moom la moom mooy jéggalewaate mooy jëlelewaate ñoom ñam dañoo dugg ci lu ñu xamul nag ñu ngi ñu ngi tooñ ñun baal lan leen lépp lu ñu waram buñ ko ci amee ñu jël nu ko ci waa ji doxalee ñu xam ne noonu la ñu xam ne ñun Sénégal fii amul loi doxaluñ ci loi fii boo xam ne bu ñëwee fii ndax fii ñii buñ fi ñëwee tey jii sous-préfet bu ñu fi ñëwee yëpp ak préfet ñan nan la demee ñu expliqué ko eh, ngeen dem denc fee yéen nag ki dëgg waaye fekk defuñu loolu dañoo def lu leen ne ñu bàyyi la ñu déglu leen ñoom nan leen déglu rek noonu ñu ko doxalee ñoom ñu nangul leen ko noon yal na ci la def jàmm rek ñoom